li ñu fi dajale mooy benn naal naal boo xam ne dafa jëm ci mbirum jàng ak jàngale ak yar mooy benn institut islamique boo xam ne dañ ko naal fële ci Lompul institut bi nag nekk lu am doy nekk liggéey bu mag boo xam ne euh, du liggéey bu ndaw li ko tax a jóg mooy islaam mooy euh, jàngal nit ñi yar leen teg leen ci yoon yàlla def nag ñu am suuf si mu ñu am ko mu toll si benn hectare li ko war liggéey tam ci xaalis toll si ñeent téeméer mil ñett téeméer million ak ñeent fukk million ak ñeent moo ko war liggéey ndax baral boo xam ne dañu bëgg mu am lépp euh, am ay barabul ay daluwaay logement am yi mbit barabu jàngukaay yu mucc ayib am ñu jàkk ci biir xam ne day complété lépp ni ci biir loolu nag nekk nag naal bu rëy boo xam ne ñu bëgg ñëpp euh, bàyyi ci xel te dugal seen loxo ndax daara ji bu àggee incha allah njàng mi na mu fas yéene mooy alxuraan lañu fa jàngale alxuraanu bu noppee tamit la ci teg mooy xam-xamu diine yi lañu fa jàngale bu noppee itam la ci teg mooy jàngale xam-xamu mbay jàngale tamit xam-xamu technologie lu jëm ci mbirum xarala yu yees yi ndax dañu seetlu ñu bëri euh, danañ jàng alxuraan bu nu bàyyi bu ñu noppee daanaka duñu am lu def wala wala boog danañ xaw a tumbaanke yenn yenn saa yi duñu bëgg nag ki bu fa génnee mat sëkk am métier boo xam ne dana ko mën a yor euh, mën cee tedd ba du soxlaa kenn dara moo tax ñu bëgg alxuraan boo ko jàngee ba noppi jàng xam-xam sa diine ba xam ko boole ko yar bi ak teggin yi boo ko defee tamit nga am nga xam nga am loo xam ne da nga mën a sukkandiku mën a yoroo sa bopp mën a sa bopp mooy xam mbay bu dee mbay mu dafa yaatu lépp lu ñuy lekk rek dañ koy bay ba ci yëri ñu sol sax daanaka sax am na yoo xam ne lay doon coton wala leneen wala wërteen lay doon ñu xam ne mbay dafa nekk loo xam ne amul kenn ku ne si àdduna te doo ko te doo ko jëfandikoo kon loolu xam-xam la boo xam ne bu bu am solo la buñ war a jàngal ñëpp la moo tax euh, dañ ko jàngale foofu tamit ak xam-xam bi nga xam dafa jëm ci wàllu xaarula yees yi loolu nag ay naal la ngir man am nag il faut nit ñi euh, xam ne mbir mi seen mbir la maanaam euh, naal bi naaloom ñëpp la ñu bëgg nag ñëpp ñu ànd ci ñun ci loolu jàppale ñu ci ñëw bokk ci projet bi ba loolu sotti ndax incha allah baagee njàng ma kenn du fay dara loolu lañ bëgg njàng ñu naan li baagee njàng ma kenn du fay dara boo doon xool itam li gën a ëpp solo lépp daanaka jàll na. mooy lan suuf am nañ ko mooy gën a am nañ suuf la sécurité moom mooy euh, am nañ ndox ndox moom wax naa ko ma ci waxal ba noppi pour mu yóbbu ko fa ba noppi loolu du problème loolu moom réglé woon na ba noppi incha allah ndox moom féetu na boor ba noppi suuf tamit du fa jafe-jafe maanaam suñu tabaxee du fa jafe-jafe li fa jafe-jafe kay mooy ñetti la bu ci jàppale lañ si lañ si gën a bëgg mooy euh, suuf moom moom mooy moom mooy xeer ciment ak fer Euh, ciment ak béton ñett yu daal lañu fi gën a soxla képp goo xam xamante ni am nga tamit euh, loo xam ne xëy na mën naa yónnal ji wala mën na ko gën a jëmmal loolu tamit ñu ngi koy sàkku. Euh, donc li ñu boole fii tey mooy waxtaanee travaux yi nga xamante ni dafa jëm liggéey yi nga xamante ni dafa jëm ci këru jàngale bi nga xamante ni sëñ Xaadim Mbàkke dafa nam sos ko fële ca dëkk bu ñuy wax Lompul Géej donc nekk ci région de Louga département de Kébémer. Euh, te mu am fa donc suuf soo xam te ni war nañ fa mën a euh, taxawal donc euh, institut islamique donc Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul donc liggéey yi nga xamante ni def nañ ko pour le moment ci nga xamante ni moo ñuy permettre ñu xam exactement lan la bâtiment bi war a jar donc liggéey yooyu def nañ ko ba noppi et donc euh, juróom juróom-ñetti xaaj la donc xaaj bu njëkk bi mooy wàllu préparation terrain bi wàllu euh, defar euh, terrassement bi wàllu aussi indi ndox mi wàllu aussi defar aussi nivellement système de nivellement bi nga xamante ne moo ñu permettre kër gi mën a am niveau bi ñu bëgg pour pour bañ a am ay dëng-dëng ci ngeen ngeen ko xamee donc loolu lépp bi ñu ko xayma juróom-ñaari millions la lu teg téeméeri junni donc 7 millions 500 mille Euh, ginnaaw loolu aussi war nañ commencé jublu ci taxawaay yi taxawal bâtiment yi donc mooy gros œuvre yi nga xamante ne amul finition bu taxaw bi donc loolu aussi nañ tabax miir bi nga xamante ne moo wër terrain bi terrain bi wax naa leen sànq ni benn hectare la donc dafa dafa a rëy boo ko estimé ci mètre carré donc c'est autour de 10 000 mètres carrés donc lu rëy la lu bari la ensuite aussi dañ taxawal fondation yi pour bâtiment bi mën a jug bu ñu paree ci loolu doo yëkkati yëkkati yëkkati bâtiment yi donc bâtiment yi aussi du tabaxuñ hectare yëpp parce que loolu dafay dafay diis trop trop li ñu tabaxum pour le moment ci lañu ñu bëgg tabax ci ci ci enceinte yi c'est autour de 2000 euh, hectares donc 2000 hectares maanaam boo xaajee bâtiment bi juróomi yoon benn benn xaaj bi lañ lañu lañ lañuy la ñuy tabax donc loolu rek euh, téeméeri million la ak juróom benn fukk ak ñeent yi nga xamante ni moom moo ko war a moom moo ko war a tabax euh, ginnaaw loolu aussi war nañ tabax étanchéité fa ngeen xam ngeen ne en foo xamante ne ndox dafay jóge donc te zone boobu tamit dañ fay dañ fay bàyyi lu bari donc ndox mi day ball souvent nappe bi soriwul donc war nga defar loo xamante ni ak lu mu mën a taw ak a taa batiment bi dina mën a résister te loolu tamit xam nañ ni problème la ci suñu dëkk yi donc am ak aguñ ci niveau niveau mel noonu loolu tamit ñu ngi ko estimé ci 27 millions puisque xam ngeen ni étanchéité dañu koy jaay par par mètre wala dañu koy jaay ci ay rouleau donc boo calculer en fait surface bi nga tamit tiituñu tam ci tiituñu tamit dama koy wax dëgg tiituñu en fait ci somme xamante ni moom la ñu parce que tamit vraiment dañu bëgg liggéey boo xamante ni dafa mucc ayib puisque ay murit lañ tamit am

defar loo xamante ni maanaam dootuñu bokk ak seen lekk dara te dinañ am courant bu doy ba mën a cee suñu bëggee donc loolu tamit donc mooy futur module photovoltaïque yi ak tamit système bi koy installé donc loolu euh, ñaar fukki million la ak juróom-ñaar lañ lañ lañ ci prévoir ensuite ñu dugg ci prombali ak sanitaire donc wàllu matériel de branchement bi ak euh, système bi nga xam te moom la ñu teg en place pour mën a traiter ndox mi xam nga ndox mi ñuy jëlee foofu ndoxu la donc boo ko jëlee doo ko jëlee naan ko donc il faut nga traité ko bu jaar ci ay réseau nga am tam ay adjuvant yoo ci dolli yoo xamante ni dina permettre ndox mi mën a set ba képp ko xamante ni mën na ko jëfandikoo sans bañ a feebar sans bañ a am problème xam ngeen ni daara bu ñu koy waxee ay xale ñoo war ko sàmm ba nga xamante ni nañ ko ay waajurab joxe woon noonu tam lañ koy delloo ci wàllu santé donc ba tamit ñaar fukki millions la nga xamante ne moom lañ ci estimé après dam dool jëm bi donc lépp li nga xamante ne moom lañ ci war a tam ñaar fukki ak juróom-ñaar la Euh, jàll aussi ci ci ci menuiserie bi donc bunt ak cadre ak euh, mobilier yi nga xamante ne moom la ñu war a utiliser lu mel ni ay bureau yi nga xamante ne ñoo war a nekk ci institut bi loolu tamit c'est autour de donc juróom fukki millions ak benn la euh, lañ ci lañ ci def loolu tamit puisque zone bi nekk tamit zone agricole la xam ngeen ni souvent booy tabax bant danga nga jël bant bi gën tamit bant bi nga xamante ne dañu koy traité ba nga xamante ne lu mel ni ay wàllu max yàq yooyu du du ko jël bant bi nga xamante ne moo gën ci bant yi pour pour prévoir ci loolu ba mujj tam ci peinture bi xam nañu mooy mujj ci ci kër gi donc loolu tamit ñu ngi koy ak jënd peinture beeg main d'œuvre bi donc autour de 2 millions la ñaari millions yu euh, waxaat tuuti tamit ci li nga xamante ne moom laa commencé woon mooy wàllu euh, daara ji daara ji ni ko bëggee euh, mu nekk daara boo xamante ni dëgg la daara yi bëri na Sénégal. Sénégal dëkku tradition bi boo jàng histoire yi dëkk daara la daara yu gën a mag depuis année 1700 daara Pire daara Koki moom lañ aajowoo ak seen société maanaam wàllu métier ak wàllu xam-xam pour doxal société bi dañ koy xaw a ñàkk tuuti léegi moo tax suñu xaar ñi moom daara ji euh, ginnaaw bu ñu jàngalee xale bi bu ko jàngalee wàllu xam-xam wàllu alxuraan ba mu mokkal lépp ba nga xamante ne peeg na ko lépp ci côté yëpp dañ koy tamit jàngal ay xam-xam yoo xamante ni dina ko jariñ dina aussi jariñ askanam kon tam ngeen xamee ngeen xamee ci ni projet bi nekkul seulement un projet murit nekkul seulement projet xamante ni maanaam day am ci nit ki mais dafay jariñ Sénégal donc appel la boo xamante ni tamit bi nga xamante ni moo moo géré wàllu éducation donc war na cee dugal loxoom ministère aussi bi nga xamante ni moo tam wala ci dugal loxoom parce que sëñ xaarim day day combiner ñaar yëpp quoi dafa boole ñaar yëpp donc jàngale mais tamit solo xale bi xam-xam boo xamante ni bu génnee dina affronter adduna bi dina ko affronter affronter boo xamante ni maam du ci sonn te dina am njariñ pour askanam